jadi lawali nang oh, lah. wasai dila kiri nang wo si duna rasulai ma begerna mende begerna lah قصد لا خرينا واي سيدنا رسول الله ما bëgg yonen man de bëgg naa leen wasid laa tànk yonen bu ne way yaa rasuulullaay magal leen abi balaay bëgg leen ma de bëgg naa abi balaay yaa rasuulullaay ay sama gaañi way leen abi balaay ku ci gis ba daanu fa moom alburaa fasam dafa yor njañ kanam ga ni bu nit waaru leen dafa yor njañee yi kanam ga ni bu loolu waaru leen fos li naaw di jaab boo xàccee mu araam naaw di jaab نعم نعم الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nee na lii incha allah mu ngi ñaan yàlla mu barkeel ci ñu yëpp barkeel ci barke korite gi yàlla barkeel ci senegal mbay mi ak oh, te itamit yàlla def raxas feebar bi bu mu geex takk ci barke kori gi nee mu ngi koy defal euh, état bi ak euh, mu di euh, am yi muy maire yi ñëpp mu ne ñëpp la ci boole ci biir nga ak nee na taalibe yëpp ak ñi nga xam ni dañu dañ ko bëgg ak soppe yi ak ñëpp bopp jullit nee lii moomeet xëy na dafa ki mais moom lii mu def nii murtan la ko defal nee ñoom ñoom ñu ngi ci diggante ñoom seen kii maanaam ñu ngi ci diggante Mauritanie ak Sénégal Mauritanie la nekk waaye dafa mel ne Sénégal la ñu nekk. nee na Cheikh al Mustain lu waral lii moom mooy seen maam ronq gi fa la ñëw te Cheikh Mustain moomu am na tata bi nekkoo ci ronq moom moo ko toj tojewu ko fetal tojewu ko jaasi lu dul ñëw. ak kurusam jaamu yàlla bi jëlee lee ca nee na loolu dafa yàgg. nee nag loolu lañu seet moom la ñu jàpp jàppe ko wàllu yëpp nag. nee na mu ngi ñaan yàlla tànk yi nga am bàyyi sa dëkk ñëw fii duleek moom mu ngi ñaan yàlla yàlla faj sa aaja ñi nga ànd ak ñëpp. lii bett ko ci yow ndax dégg na sa dégg na sa sa jëf dégg na li nga daj ci doomu aadama yi dégg nga dégg na la ngaa daj ci commune bi kon lii moom bettu ko bettu ko ci yow. nee na yow it bi tey nee na toujours mu taseeg yow ci gàmmu yeeg yenn cérémonie yi waaye nee na loolu yëpp xam na ko te mu ngi la ciy sant mu ngi la ciy gërëm. nee na nee na même euh, ñuy nekkee guwaar ci Rosso. nee na yëpp euh, bi nga xam ni ñoo ngi jàll euh, yàlla def euh, kaar bi am problème bi dugg ci ndox mi nee na gis na li ngay li ngay la ci taxaw yow meer nee na loolu du ko fàtte mukk ndax booba am na loo xam ne lii ay taalibaam mel noonu nga taxaw ci àndaam moom nee loolu du ko fàtte mukk nee na musul gis lu ñu lu ñu xewle fii ci waalo te ñëwuloo fa nee na ma laa gërëm nee dafa bëgg lii mu wax nii ma laa la laa ngi laa ma maanaam ma laa jox yéen ni jox la ndigal nga waxal ko que état wu Sénégal yëpp ndax yow yaa ci kii nee na lii ni nga ko jottali ñëpp. Mm-hmm. nee na itam nga àggaleel ko ni ko loolu bu weesoo ñoom talal nañ leen loxo pour seen taalibe yi fii ak ñoom li ñu mën ci gën jàppalante li ñu mën ci gën dimbalante loolu nee na sarsenal ko. nee na surtout nga xam ne taalibe yi fii ki tool yi ak ci yeneen mbir yi nga xam ne état bi moo leen ko fa taxawee nee na loolu sas na la boo demee yow nga nga wax nga wax ko nga wax ko ci làmmiñam moom moo ko wax. nee na ak nee na encore yi nga xam ne tabaarkalla diñu àndaanun boobu bi léegi ñu ngi ngeen ñeenti fan fii la ñoo fanaan fii la ñoo yendu fii la ñoo fii la ñoo nekk di nu guddi gi yëpp nee na loolu loolu rëy na loolu. nee lépp loo xam ne lii wax nañ léegi na nga yëg ne tey jii ñoom def nañ ko. nee na moom génnul mu ngi toog fii waaye lépp lu xew xam na ko. nee na mu ngi ñaan yàlla daal lii loolu ngay bëgg indaale xam ci xol ku ci ne yaa xam yal na ko yàlla fajal mu nga yég ko. nee na mu ngi ñaan yàlla yal na yàlla suturaal leen suturaal ñëpp. nee na gaalaan direct fi euh, euh, euh, rajo waaye vigilant nee na ma ngi ñaan yàlla yàlla fi yàlla def yiw nee na mi ngi gërëm Abdoulaye Mbodj nga xam ni mooy président fédération waalo bi jàmbaar lool wallaahi nee mi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jàppale ci li ngeen di def nee na mi ngi gërëm ñëpp nee na ñëpp ngi xam ni ñoo liñ ko nekk li nga taxawee yaa xam ku mu mun doon ak loolu fi mu indi ñëpp mu ngi gërëm ñëpp nee na ma ngi gërëm imaam ronk nee na ronk moom itam ma ngi koo gërëm bu baax mm, ak chef de village ak mag ñi natabal yu baax yi ci ronk yëpp wala yëpp nee na ñoom ñëpp ku ci àdd ku ci kàddu rek yaa ngi jeex sa kàddu ci baatu wala gi yëpp nee na itam ma ngi ma ngi tàllal loxoom euh, tarixa yëpp ci ci ci Sénégal lépp talal leen loxo te xam ne ji benn la lislaam bi benn la nun ñëpp benn lañu nu ñun jullit yi war noo demlante war noo dimbalante te xamante loolu nee na talal bëpp tarixa nee na mu ngi ñaan yàlla encore Sénégal ki fi muy président yi muy euh, euh, ministres yi muy militaires yi muy ñëpp nee na ñëpp yàlla na yàlla boole seen xol dëppale leen bu mu rafet nee na ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def ngëneel asalaamaaleykum wa ñu ngi ñaan mu arab boo wàccee mu ñaan alburax boo wàccee الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على سيد المرسلين وفي البداية نهنئ جميع المسلمين مناسبة عيد الفطر ونحمد الله سبحانه وتعالى أن صمنا رمضان كامل وختمناه بهذه السلة اليوم اللي اللي اليوم اللي هو عيد الفطر طيب يقولوا له العلم عن يوم الجائزة سوا خم خمي دني كتودي بسوم ماي اللي في صمت رمضان كامل جايزة ستنعطى لك اليوم. ما انا ماي يلا بوفوري كورغي بومو يلا دفنا ماي بس بي bi nga سي si شكرا ci شكرا سنغال منجي Sénégal سنغال ngi لا حضور اليوم بهذا السلام seen teew طيفي tey fii ci عند مولانا إن شاء الله منجي نياني يلا نقضينا قضينا إن شاء الله جميع الحوائج فجرنا سنوي سخل نيو شاكرين كنتم أهل الصحافة على الدور العدل تنين من كسانت لنيين وبريسي جورناليستي تيو في اللي نقلتو هذا لسلال عدلته زين اللي جاي وراح دقيق ورافت جين طيب ان شاء الله يجعل لك ميزان حسنات من جنيان يلا دفلو له كيسان تيري وباخي هذا السلة الفطر جينا جولي كوريتي وهذه الطرق الصوفية ت يوني يونو يونو يونو ديني يوني ام سنغال يونو تصوفي يونو تصوفي ام سنغال مهم الانسان المسلم باخنا تجولتكي لان اهم شيء ندخ عن اهم شيء ندخ لي غنا ام امبورطانس موي انك توصل الى الله سبحانه وتعالى نغا يغ سبحانه وتعالى ولاك ما لك اللي توصل له له دو اغ موم تانك ما فت رايت شيخ مربي تانك امولو سرين جو خامني يوصلك الله سبحانه وتعالى دلي تك تي يون جي بنغا اغ ويقول اهل العلم تبا خام خامي دني انك لعد تختار توصل الله سبحانه وتعالى بوبو جي اغ سبحانه وتعالى عنك تنسى راسك شوي إيه، انا ورفعت سبب توتي وانت قاعد خلاص السجود تيو بوخو ليتي سجوده هو عنك تنهنى هكذا موي دنجي سجل سبرم معناها نسيت راسك موي فاتنغ سبرم تعود مقرب من الملام جيجنغ سبرم هاي طرق الصوفية ذاك هو بجيجنغ سبرم هاي طرق الصوفية يونس يونس صوفية تهتم بذاك الطريق تي يون بوبو لا نيو جيل جيل امبورطانس قد تشوف به اللي هو جبريل اللي نسولو سوى النبي صلى الله عليه وسلم ناح جبريل بكي يون انت صلى الله عليه وسلم لاجكو قالوا ما الاسلام مونيكو لان موي الاسلام قالوا ما الايمان مونيكو لان موي الايمان مو قالوا ما الاحسان مونيكو لان موي الاحسان قالوا عن الاسلام مونيكو الاسلام اللي هي شهادة ان لا اله الا الله موي شهادة ان لا اله الا الله وصلة وزكا وذا كامل اك جيرومي فرتي يلا تك بدوم ادم الف فيه علماء كثر امنا اي بروم خم خم يو خم الايمان اللي هو العقيده الايمان موي عقيده موي قم يلا قم يلا عقيده مو اللي الا فيه الناس يا سمت ممتم امنا بروم خم خم يو بري خم بقى مقام الاحسان وحده دسنا مقام الاحسان وحلو فيه الله الصوفيه نينا مقام الاحسان نك. ني توب يون صوفي كسي نيوم نيوك يوم نيوك تيسن ان تعبد الله موي سيرني موي جامو سبروم كأنك تراه من يانك يجس فإن لم تكن تراه فإنه يراك بو فك يجسوك خمني مو من يجس ما نبغى نطول عليهم لانه بقول قد الوحدة هن إين هالسنغال من جي سانت ديغر مو سنغال هن إين هالموريتان مسلمين كامل سانت وموريتاني يوب جلتي يوب في هذا عيد المبارك تي كوريتاغي وشاكرين هم تمغلين دي سانتيان بو باخ السلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم آه، بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين الشيخ آه مختار دومو الشيخ مستعين آه مانجي قرم بباخ و ديجيتال اك راديو سنغال ار تي اس دي كرم وعدك يوب ريومي بريزيدان ب لغنا سوف تي تي نيوم يوب سونو كريتيرن korité spécial la ndax mbas mi bu mu ñëwee fii ci àdduna ba tënk yëpp eh, xalaat nañu te am na ndigal ci xalifa gi pour nu def ko fii ronq waaw pour nu yombal mbir mi ci taalibe yi nu yombal ko ci ñaari réew mi eh, moo tax nu ñëw fii nu julli fii mais defuñu ko hasard ndax sunu baay Cheikh Mouhamadou Salim moom moom mos na ko def après l'événement euh, ne yaakaar naa 1994 euh, jamono boobu euh, comme que événement 89 maanaam décidem des na at boobu moo tax mu mu mu ñëw moom ak ay rakkam ay taalibam yu ñëw fii Sénégal takku dex gi julli fii korite tamit ñun mu ñu demee ba am loolu comme que sunu waay jër su nañu def ñun tamit ñu def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa xuyyara bayna amrayni illa xtaara aysarahuma yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko boo ko mayee ñaari chance moom dana tànn la gën ak la gën a yomb moo tax ñun tamit comme que sunu maam loolu defoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ñu tànn kii ndax moom gën oyof ci taalibe yi moo gën oyof ci ñaari yoom yi moo moo moo gën baax ci mbas mi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw jërëjëf euh, euh, def ngeen lu baax euh, man dama jàpp sama bopp waa Sénégal la ndax sunu maam Cheikh Moustahine fii fii fii fii fii la yaroo fii la samp daaram fii ci takku dex gi fii ci jawaar teex te moo fii la faatu fii lañ ko sàngoo ci tax gi takku dex gi diggante làq ak ngandoor te Cheikh Moustahine dundam yépp fii la waaw kon ñun waa fii te jamono boobu eh, sunu xeet yëpp sénégalais la moo tax boo xoolee histoire bi eh, diggante eh, xën na dem fii booru waasul boobu jaaj faxa ñoo ko moom te ba léegi sunu kaye boobu mi ngi ci dagana ba léegi te man mii sama maam ci ci wàllu sama yaay moo jur sama yaay maxan mos na nekk chef de village de jaaj faxa kon ñun waa Sénégal la me kunu kunu kunu dalal fi tamit السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أنا الشيخ جية والشيخ محمد السالم والشيخ أحمد السالم والشيخ المستعين آه، آه، أخو الخليفة العام لنوركي آه، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة التي أنعم بها علينا وعلى غيرنا أيضا نسأل الله أن يجمعنا مع مع مع تلامذتنا وجميع المسلمين إن شاء الله في الجنة إن شاء الله كما كما كما صاحبنا في آه، الدنيا آه، هذه آه، اللحظة التي جئنا فيها إلى هنا إلى السنغال لأول مرة لصلاة الفطر المبارك هي مميزة لأنها غير عادية نظرا للظروف الصحية التي تحيط تحيط بالبلدان والعالم كله لذلك آه، هي مميزة آه، نحمد الله عليها ونحمد الله الذي يسرها ونشكر آه، السلطات السنغالية والموريتانية أيضا الذين سهلوا لنا هذه الزيارة والمناسبة الكبيرة نسأل الله تعالى أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء آه، العلاقة التي كانت تربط بين جدنا الشيخ المستعين بالله بهذه بهذا الجانب من الأرض في السنغال الذي دعا فيه إلى الله تعالى فنشر الإسلام و آه، وكانت هناك صحوة إسلامية إيمانية جديده على هذا آه، على هذه على هذه الربوع من الوطن. نسال الله تعالى ان يعيننا على السير على خطاه وخطى المصطفى صلى الله عليه وسلم لاحياء هذه آه، العلاقه تكون علاقه دائمه بيننا وبين اخوتنا في السنغال وفي موريتانيا ايضا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب الله ويرضاه وينعم علينا بجميع النعم في الدنيا والآخرة نحن وتلامذتنا وجميع المسلمين في البلدين وجميع البلدان الإسلامية والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته عارف بليغ بسيط الوجه خامع الشيطان وفي سبا خدنا علما مثمرا شيخنا شيخ احمد سالم دداي جين الاسلام في السباق قد نال علما مثمرا يا فوز من نال به علما وعملا فزا وسوء طفل ووس شبابه وفي كونه شيخ وصاب المفارق شريف كيس امام ينتي الله محمد الصبح البدا من طلعته ينن والليل دجا من وفرته يا رسول الله موسى مام فاق رسول الله انا كيف كنا بقى سيدنا محمد رسول الله فاق رسول الله فضلا وعلا هدا سبلا لدلالته انت يا محمد ما مام كنز الكرمي يا رسول الله ما من ترى انقلكي مولى نعمي شريف سمام هذه الامم لشريعته انت يا محمد ازكى نسبي كي بلا يونن على الحسب تيب la كل العرب في خدمتي سمام ينت يلا محمد نال شرفا تيب بوبا والله وعفا تيب بوبا عما سلفا من أمتي فمحمدنا كي موي سمام شيخ أم سالم الإسلام فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته ينن والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أه، ما سنت يلا بباخ دي قرم دي سنت تالي يب أك سبي يب أك جلتو يلا دي قرم RTS di la gërëm wàllu digital di la gërëm ñaari président ci ñaari réew yi président Macky Sall ak président Mouhamadou Cheikh Ghazouani di la gërëm gouverneur de Saint-Louis ak euh, préfet de Degana ak sous-préfet Tindiaye Le euh, commissaire Moussa Ndiaye est au Sénégal le euh, euh, commandant de brigade gendarmerie commandant Koli le chef de bureau de douane du Sénégal ak monsieur le maire Fille Tironque, le El Ahmed Tijan. maa ngi leen gërëm bu baax di la gërëm ku jox loo xam yëpp ci ci bés bi parce que bés bi mooy bésu Cheikh na Cheikh ay dara euh, fii ci Ronk euh, macha allah gis naa taxawaayu état bu baax taxawaayu ñaari état yi bu Mauritanie ak bu Sénégal man nag mooy Cheikh Ahmed Salim Aydara gaynde l'islam représentant famille waa kër Cheikh na Cheikh Moustahine fii ci Sénégal alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax mais maa ngi sant état fii ci Sénégal parce que macha sama responsabilité état mi ngi taxaw ci moom bu baax parce que bureau bu nekk boo ñëwee ci moom mu représenté sama bopp di taxaw ak man macha allah loolu macha allah kontaan na moom bu baax a baax euh, macha allah euh, jour bi macha allah neex na lool julli neex na euh, taxawaayu RTS bi ak wàllu digital macha allah taxawaayu rafet. xalifa Cheikh Acha mi ngi leen gërëm bu baax mu ni ma macha allah gis na seen taxawaay tabaarakallaahu euh, wa ahsanul xaaliqiina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu wàllu mu ci am loo xamante ne ci wàllu jàngat la sëriñ hmm. wax ni dootul diggante taalibe hmm. waaw eh, nun ak sunu taalibe ay doomu ndey lañu parce que nun sunu cosaan fii waalu Mauritanie dinu bees ci moom kooku waxu sunu maam Cheikh ne Cheikh Moustahine باسكو شيخنا الشيخ مستعين والو في لا باسي ادنا ميب أه غني ادنا بو غني ادنا دومم شيخنا الشيخ احمد سالم مو رامبلاسيم خليفه passé na seen àddina festival ci booru laq ak teex laq ak teex mooy booru waasul jawaar xën ba si jamono xilaaf cheikh na cheikh Mouhamadou Salim mooy papa cheikh Acha bii ni xalifa léegi jamono boobu côté bi bari na yoo mu ni day dem côté Mauritanie mais boo demee foofu di toog foofu mais nun sunu kayit sunu carnet mu ngi fii ci Dagana ba léegi nun sunu 50 pour cent Mauritanie la mais sunu 50 pour cent Sénégal la waaw kon Sénégal ak Mauritanie benn la tunu waaw kon ñun ak Sénégal bi ay doomu ndey lañu waaw loolu moo taxit ñu wax loolu waaw. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di am kontaante lool ci seen taxawaay ndax ah, wane ngeen seen cawarte ak seen man-man ak seen profession ñëw teew si ci ronk ànd ak ñun ci arrivé sëriñ yi taxawee ko tey nuy def korité fédération bi organisé korité fii ci ronk ngeen ñëw teew ànd ak ñun couvrir ko tawaarkal la kontaan nañu lool sëriñ si aussi wane nañ ni kontaan nañu lool mbooloo mi teew na julli gi tawaarkal la tegu ci yoon waa ronk tawaarkal la mobilisé nañu génn ci julli gi teeru gan yi tabaarkàlla dara manqué wol ñu am ci kontaante lool di wax rek ni la korite dafa doon feet boo xam ni dafa rëy ci julliti àdduna bi yëpp koy bokk di ko def bon buñ ko teewee fii ci ronk def ko fi am nañ ci kontaante tabaarkàlla réussir na événement bi la dara manqué wul bon dañ leen di ñaanal rek seen rajo bi ak télévision bi yàlla màggal leen ba ñu àgg fu ngeen ko soxlo ndax RTS moom tabaarkàlla ku nekk xam na mais loolu leen di ñaanal fii ci région bi mooy tey ni ngeen amee rajo di couvrir ci région bi ngeen amee ko télévision ba di couvrir valo visital ñoom itam tabaarkàlla ku nekk gis na leen bépp événement boo fi am rek ñu ñëw taxaw ñoomee tam couvrir que partager information yi ba ñëpp jot ci loolu nag am nañ ci kontaan yow Mbaye fi teew tey ak euh, Omar tabaarkàlla ñu ngi leen di gërëm ci turu sëriñ bi ak turu fédération bi ak turu waalo yëpp di leen ñaanal yàlla seen métier mi ngeen am ci lu raw seen yort kontaan nañ ci yéen lool tabaarkàlla ñu leen di nayu di leen siyaar. dëgg la ndax ñoom dañuy wax ni ñoom seen diggante seen ak seeni taaliba du diggante nit ak taaliba diggante doomi ndey lañ seeni waajur dañ leen xamal carrément ni leen waalo du ak seen diggante du diggante nit ak taalibaam diggante nit ak doomu ndeyal ba taxawaay boobu la ñuy jàppee seeni taaliba ndax lépp lu xew ci fii ci dëkk yi nii ñoom dañoo jóge ci Mauritanie ñëw teesu bu dee bànneex nu bokk ka bu dee naqar nu bokk ka te loolu dafa rëy sos boobu moom la sëriñ bi yeesalaat tey ci julleekaay bi wax ka taaliba yi wax ka ñi fi teew ñëpp pour ku nekk taxawe lool noo am ci kontaante lool la di jéem rek sàmm loolu ndax ren noo ngi waree ci rong di ñaan yàlla yàlla may nu buñ ko fi teewee déwén nu man war a jiwaat ci nawal ki comme ni nu ko daan defee ndax ren mbas mi yàlla indi moo tax ñu def loolu balaa boobu yal na ko yàlla teggi ba ñu mën dellu ci fi ñu ko daan defee. dawaat kàlla meeru roq ni mu ko waxee woon sànq ci jullikaay bi rek kontaan ci moom ndax moom lépp lu nu xewle rek dañ ci teew ànd ak nun lépp lu nu xewle bu dee bànneex dañ ci ànd ak nun bu dee naqar dañ ci ànd ak nun askan wi aussi comme ni ma ko waxee woon sànq am na fi ay éléments yoo xam ni jàppale nañ nu mu demee naka ñoom Fara Mbodj ñoom Bouna Seck ñoom Faali Seck ñoom euh, Mohamed Ablaye Diop ñoo ñëpp tabaarkalla dugal seen loxo ci mbir mi jàppale nu ba nu mën réussir koré euh, korite gi waa Ronk tabaarkalla ñëpp mobilisé ñoom itam tabaarkalla dara manqué wu fi loolu moom dañ koy sant yàlla Ronk dañ na wan rek ni mbir mi noo ko bokk tabaarkalla bu ñu ko defee ci ñoom ñu dugal ci seen loxo bu baax ñu ngi gërëm ñépp di leen sant tabaarkalla mm-hmm. I yot nen bu nu noon waxtu yi juróom bu jabayit ne bu nu noon waxtu yi juróom bu jabayit ne bu nu noon waxtu yi juróom meey waay bu ñu waxtu yi juróom ku ko fàtte ci bis bi kenn du ko faat yàlla rek a muñ dafa jël jur gi jox ñu koy du ki war jox yi du jeex àll benn ut naa sunu boroom dafa jël jur gi jox ñu koy